campagne électorale nekk na jamono boo xamante ni sénégalais yu bëri dañ ci gis seen bopp bokk na ci ñooñu ñii di sérigraphie ñoom ñi nga xamante ne dañuy yëngu ci mbirum flocage ñoo ngay xaar bés bi Mamadou moom li mu bëgg rekk mooy candidat yi gën a bari. campagne yi candidat yi xam naa lu mu gën a bari mu gën ñoo arrangé. waaw parce que dinañ dem ba gars yi di rejeté ay liggéey moom. ñun ñu ngi espéré wu bu baax a baax si kàttan yàlla comme dab. bu ko soriwul ñu fekk fa Arona bi leen ndaw daal di xam ne ni que si at yile mbir mi dafa xaw a taxaw waaye nag moo ngi yaakaar si bile présidentiel mbir yi jugaat bu baax. ma depuis corona ba léegi liggéey bi doxul. xam na après janvier bi daal yi xam ku nekk kuy dem ak ku dem si la gars yi commencé gis nag liggéey bi baax. ku si nekk ak ngay soutenir souvent da ngay gis koo xamante ne nii diw lay jàppale day monter photoom ak photo diw ànd ak moom bu ko defee monter ko. yile sérigraphe ñu ngi woo politiciens yi ñu commandé si ndaw sénégalais yi te bañ a dem jëndi foofee ca bitim réew. dañuy dégg ni gars yi dañuy yóbbu liggéey ba siin te ñun mën nañ ko liggéey Médina bi ma nekk nii rek am na fi ay maanaam ay ay ay 500 sérigraphe atelier sérigraphe. waaw waxuma laa nag parcelle feneen ak feneen ak feneen. laata campagne électorale bii di tàmbali yi leen ndaw commencé nañoo duufal seeni gafaga te li ko waxal di coupe d'Afrique des nations mi nga xamante ne mu ngi jub si. barki dem ba léegi maa ngi commencé liggéey ay mayo surtout euh, inauguration bi Sadio ne def fan yi stade bi waaw vraiment gars yi ñu ngi ñëw di la jox ay cinq mayo defaral ma si Sadio Mané vraiment bu dee si wàllu maillot yi moom macha allah ñu ngi si ñu ngi siy commencé quoi si Coupe d'Afrique bi. campagne électorale bi nag dina tàmbali ñeenti fan si weeru février bu ñu jëm jamono ji nag ñi di sérigraphie ñoo ngay dundee yaakaar.